ayca Alphie suñu euh, crème. renversé pare na euh, Fatim Niang euh, qui adore cette rubrique ah yaay maman Rokhaya elle dit elle demande pour nga ñëwaat ci euh, meew bi lu ñu koy def. donc meew bi dañ koy tàngal. dañ koy tàngal ah. dañ koy tàngal jusque xam nga meew su baxee day tuuru. ok donc il faut que il faut que waa ñu éviter mu mu fuur. su tàngee rek dañ koy dañ d'accord d'accord bi ci meew bi lañ koy def. d'accord d'accord léegi da nga ñuy servir ah. c'est ça a l'air bon ah. nuru lu neex crème baa ngi toj tojol noonu ci kaw ñu daal di woo suñu deuxième Ousmane Seck mu ñëw rejoindre ñu. ça me rappelle le flan. ça ça te rappelle ça me rappelle le flan ça te di ñëw si ñu ah, fàttali leen euh, tey de euh, mardi mardi tey le 12 ah. lundi lundi tey le lundi non. tey le 12 non. voilà alors tey le 12 ci la ñuy diffuser euh, filmu Nicolas Sawalo Cissé. papa yu Sara Cissé suñu suñu papa. ah alors film bi tey jii lay jàll ci grand théâtre rendez-vous foofu mën ngeen ñëw àndandoo ak ñun ci guddi gi comme ça ngeen mën a seetaan film boobu mu réalisé Mbëbës d'ailleurs mën nañ leen woon annonce bi comme ça ngeen mën cee bàyyi xel en attendant tey ci guddi c'est un très bon plan donc